Ils nous ont déclaré la guerre comme nag dañu déclaré guerre ne leen wóor ne tey ci guddi ba suba ñoom bu ñu nelaw. sant ak ngërëm ñeel na leen yéen ñi nga xam ne yéen safoo chaîne bi di Buzz Actu 221 mën nañ ne négri démb lii li langue politique bi commencé naa jax bu baax a baax ci ay kàddu yi nga xam ni rafetlu ñu ko benn yoon ci mim réew di senegal ci loole ki nga xam ni moo di Abass Fall daal di àddu ci ginnaaw bi nga xamee moom dañ daal di song ay ndawam te mu njort ni ki ko def du kenn ku dul kaw kii di Barthélémy Dias loolee sa tax na moom Abass Fall daal di xamle ni tey jii mën nañ ne moom kat ni démb dafa daal di xamle suba tey nañu képp kuy ñëw ci ñoom nañu matuwaay bu baax a baax ngir kat ñu bañ leen a bett benn yoon ndax kat am na loo xam ni du ko nangu te duñ ko nangu benn yoon moom mee sax daal di xamle ci ak vidéo man mooy moom mooy ki nga xam ni moo daal di assumé boobu mbir daal di ci woo bu baax baax ki nga xam moo di président de la république waaye tamit di ci woo ki xam moo di ministre de l' intérieur Jean Baptiste Tine ba tax na jamono guñ toll nii moom mu daal di xamle Abass Fall daal dina xamle bis ni tey jilee képp kuy ñëw ku nekk na daal di indi li nga xam ni moo di paaka jaas yi ndax kat ñoom dañ dinañ dinañ pay fayu par force loole sax mel ni moom Abass Fall déggul woon benn yoon kàddu yi nga xam ne moom la président daal di woote nga la république daal dinay woote woon ci ak vidéo ni ki ni nga xam ni annoncé woon nañ ne démb la campagne électorale wala commencé moom kat daf daal xam xamle woon mu ngi invité bépp acteur politique bu nekk ñu daal di jiima fexeel daal di dugal ci mim réew Sénégal jàmm ak salaam ci période bi nga xam ni moo di période campagne ndax kat bëgguñu beneen violence te loolu dañ ko war a baal di maytu bu baax a baax waaye ci boobu jamono mën nañ ne lii nga xam ni moo di convoi bu tëdd liste Pastef les patriotes bi lee di wéy turu Abbas Fall daal nañ koy attaqué négri démb dimanche 27 octobre foofee nga xam ne moo di Mermoz Sacré-Cœur te loolee sax mu nekk acte yi nga xam ne am nañ ñi ci gaañu am ñeen ci ay militant mu nekk mbir bi nga xam ne lu mu daal di ñaaw la ñàkk dañ leen agressé physiquement ba tax na jamono guñ toll ni loolee daal di métti lu ndax oto yi nga xam ni gis na njort nañ ñi nga xam ne ñoo di camp Barthélémy Dias ñoo daal def babale mbir mu nekk mbir bi nga xam ni tax na moom Abbas Fall daal xam xamle jamono guñ toll ni lim daal di woote du lenn lu dul ak riposte ba na sax mi xam leen ni démb ne tey ji ñoom militant militante yëpp ku ku ñëw ku nekk na daal di indi li nga xam ni moo di jaasi ak paaka ak lépp loo xam ni kaay mu rek mën nañ ko jël ngir xeex ñu xeexee ko naka tey jii du ñu betteeg te dañuy fay naka ñoom du ñu xeex mu ko di di di nëbbatu ba tax na mu nekk acte bi nga xam ni moom mi la di borom Ndakaaru comme ni ko gars yi di waxee waa Pastef nekk na acte bi nga xam ne lu daal di yéeme naka lu mu daal di xamee demee euh, armez-vous nous allons riposter loolee mu nekk benn mbir bi nga xam ne lu daal di yéeme daal ci teg ne ne la c'est rien à rater couteau extra bu nekk mbir bi nga xam n daal dina yéeme na ko moom kur ak yeneen armes yi nga xam ni ngir arme de protection lay daal bi nga xam ni nekk na jamono gi nga xam ni jamono campagne la te ku nekk campagne xam ni wax yenn wax yi mënul ñàkk benn yoon waaye tamit yenn attaques yi mënul ñàkk benn yoon waaye Abbas moom giseewul noonu benn yoon li mu xam ne daal mooy nañu préparé bu baax a baax ak conséquence bi mun a am nam dinañ prêt pour jàkkaarloo ñi nga xam ni ñooy def bii la ñaawteef te loolee moom Abbas Fall mu ngi woo ki nga xam moo di l' intérieur sama témoin man wax ni nekk na mbir yi nga xam ni dinaa ko def loolee acte yi nga xam ni daal dina yéeme kat moom Abbas day xam le ay xale ak ndaw ak jigéen ñoo ko ñoo ko topp kon jamono guñ toll ni am na léeg li nga xam ni loolu la askan bi waroon tal wala wala parti bi nga xam ni moom la njott moo def li ñu mel di parti parti bi nga xam ni moo di camp Barthélémy Dias woon benn yoon di attaqué moom convoi bi nga xam ni ay mag ak i xale góor ñëpp ci ay jigéen ba ñu am ci ñoom ñi nga xam ne daal leen daal nañ leen gaaj mu nekk mbir bi nga xam ni lu daal di waaye nag lu munta am ba am ñu ngi ñaan yàlla bu baax a baax ci campagne électorale yi nga xam ni moom la ñu nekk ci jamono guñ toll nii yàlla ci yàlla wis ndox bu sedd ba ñëpp ñoom ñëpp ñu campagne ci jàmm que le maire